Ah, mais dafa nduroog RTS nga xam xam xam nga moom RTS moom c'est une calamité. il faut mm. mm. li fa doon am. mais mm. c'est tout sauf de l'information. nga fa doon am parce que non mais li ñu doon wane. mais mës nga gis plateau RTS ñu wane opposition pouvoir ñu toog di waxtaan. mosul am RTS. alors que temps yii njëkk RTS toog di joxe résultat directeur RTS woote en direct. nga leen bàyyi li ngeen di wax RTS directeur bi ñu def en plein journal ñu souhaité directeur bi anniversaire joyeux anniversaire journal 20h journal 20h mais maître wala le journaliste di def meeting moom teg ko ne xoolal nag ni ma la téyelee. ni ma la il est devenu DG de la presse. absolument je suis précis dans ce que je dis. non mais c' est c' est grave. effectivement est est est que tey jii euh, li xew Ukraine ñun duñ ko wane. waaw. Ah, oh. Russie ak seen guerre bi. RTS da koy wane international. da koy da koy wane mais pourquoi ñuy wane li xew Ukraine te li xew Sénégal duñ ko wane moi j'arrive pas à comprendre ngeen wax ma ñun dëkk jàmbur di xeex ñu wane na ñañ fay rey wane émeute yi Sénégal am jafe-jafe nit ñi génn di ñaxtu di xeex ñu ne duñ ko wane c'est la l'amateurisme ba pare gis nga RTS li ma gën a soof ci ñoom chaque samedi ñu tegal film Rambo. ba léegi xam nga non yooyu aussi ñu bàyyi ko quoi chaque samedi ñu ñuy tegal fi ay film Rambo. mais yow doo ko si man léegi nag baal ma ne mais RTS moo fekk leur projet nag xam nga ba pare nag aussi ba pare nag aussi RTS foog ñu def ménage foofu Racine Talla pas plus tard avant Diomaye di fal président Diomaye di falu mais def na ay mbir yoo xamante mbir yu doy waar la jël ay contrat bi yokkal nit ñi salaire def yooyu. ah non loolu moom euh, il faut même pas s'inquiéter. loolu la ah rupture. Euh, loolu eh, eh, bu ñu bëggee rupture am nag. la rupture euh, de la récréation ah on peut pas parler mm. ne tey jii sama dërëm y ah sama dërëm dërëmu maître dërëmu bitéeg dërëmu ñu ñëpp suñu dërëm nekk ci biir RTS. Sénégal yëpp lii Walf fi def RTS moo ko waroon def fee manqué na ndox ñi takk nañ brassard rouge parce que RTS sénégalais yi ñoo ko moom léegi nag pour ñu mën a jóge ci loolu foog loo rupture bi ñuy wax foog mu am pour mu am mais foog tey ji ñu gis RTS ku toog ku taxaw ku ma ne pas matériel nekk fa toog fa di anime nga gis tey ji opposition pouvoir am njaay indi jóob gi ñu waxtaanee ressource naturelle waxtaanee leneen ak leneen mais man dafa fenn fu bëgg jàll maître fi mu toll nii dafa toll ci euh, tournant bu bu bu am solo ñuy waxtaan ci naka la ñuy def pour génn ci bu man njaam gi. Mhm. keroog bi ñuy feete indépendance dama ne ban indépendance la ñuy feete ndax nous sommes pas indépendants nous sommes toujours dépendant de l'Occident. Mhm. Mhm. booy xool tey euh, <clears throat> lii ñuy consommer. muy ceeb muy yeneen condiments yi yooyu yëpp. dañ koy jële ci bitim réew ban pexe la ñu mën a def tey jii ba génn ci loolu am une souveraineté alimentaire mhm. suñu industrie yi ñaari question la nga jàpp boobu suñu industrie yi ñu war a dooleel dañu man dama def la constat mhm. que bépp sénégalais bu jóg est-ce que am nañ ko bu jóg di taxawal benn affaire nañ la dóor ay euh, fisc ba nga daanu am na ay entreprises étrangères yu fi nekk mhm. dañ leen exonéré ci ñu fay fisc bi pendant ñaata pendant quatorze ans <coughs> te am na yeneen aussi yu fa xew ay dossiers yu ñu téye yoo xamante ne car ce qui concerne euh, euh, entreprise boobu euh, ICS ICS ICS waaw ci seen gestion ak aussi indien yi euh, ni ñu téye Sénégal di def lu leen neex vous voyez des entreprises chinoises yoo xam lu leen neex la ñuy def je pense que yooyu aussi war nañ ci war nañ ci war nañ ci indi ay ay ay ay coppite ci ñaari axe laa bëggoon nga nga nga tontu ci ci souveraineté alimentaire mais aussi ci suñu industrie yi ni ñu def ba dooleel leen industrialisation xam nga am na ay jéego yoo xam ne yaa ngay wax par exemple ceeb bi parce que moom dañuy gën a consommer fii mhm. boobu le président nu mu tudd Ablaye Wade di di di quitter il avait laissé ici quatre cent cinquante mille tonnes par an mhm. le président Macky Sall ci région am dem nañu ba un million trois cent quatre vingt mille tonnes par an donc y a du jéego dessus mhm. ça il faudra parce que être nihiliste c'est grave mhm. objectif c'était un million six cent mille mhm. <laughs> donc y a am na ko ba foofu pare na dem na donc il faudra que le régime qui vient d'arriver atteindre l'objectif et peut-être dépasser ko ba ñuy exporter loolu li ñaan parce que c'est un produit qui est récurrent et qui fait vraiment sortir beaucoup de devises sur la souveraineté alimentaire programme mu Diomaye président daf ci def accent sur la sur les, la qualité des semences <coughs> sur la diversification des semences mais également sur une politique euh, foncière d'abord parce que il faut que suuf si ñu xam comment euh, kan moo ko moom et mën ko sax tey la pour mën a gérer euh, comment ça s'appelle euh, travailler avec les banques parce que les les les, les concessions privées n'ont pas de poids mm. au niveau de, de du secteur agricole il faut aussi la maîtrise de l'eau parce que yooyu tamit ñoo fii l' agriculture ne dépend que de la pluie mm-hmm. alors que la nappe phréatique y a l'eau il y a aussi euh, tout ce qui peut permettre euh, la mécanisation fii pouvoir bu fi nekkoon lu mu def yu bëri ci yooyu def na ko mais vous retrouvez les tracteurs a Mauritanie mm-hmm. wala Gambie xaw ma ndax Papa Matar dem nga ba gis wala Gambie man ma dem naa ba gis ko donc pour vous dire que euh, et puis entre les les les les producteurs locaux mm-hmm. et ñi nekk seen diggante les intermédiaires engrais yeeg yooyu voyez le business qu'il y avait à l'Assemblée nationale bi doon coow avec euh, nu mu tudd le député oh, Cissé Lo qui le décriait ñoom ñëpp nee na man dama ci war a am un député qui parle comme ça en pleine Assemblée nationale mm-hmm. donc yooyu yëpp sont des choses qui doivent être euh, bannies mm-hmm. rupture am fa aussi également sur la souveraineté aussi bien alimentaire sécuritaire on parle même de financière mm-hmm. sur la monnaie borom 1 virgule 56 pour cent yi dinaan loolu mu mënu fi am indi fi un débat boo xam ni taxul. Uh-huh. waaw euh, on a vu que tous ces pays là ñoo xam ne dindi dindi par exemple seen CFA dindi CFA bi wala monnaie boo xam ne c'est calqué sur la France mais tous ces pays la ñoo raw Sénégal Maroc Tunisie Algérie yooyu yëpp ñoo raw Sénégal pourquoi ñun ñuy ragal on a peur de quoi. de uh-huh. plonger dans le vide on ne va pas être dans le vide parce que yooyu yëpp day laaj nga def les conditions préalables. Euh, pour que ñu mën a avancer à ça. Absolument. mais mënuñu ñëw tey nga ne man je suis indépendant militairement je suis indépendant agri euh, sur le plan agricole <coughs> alors que yow xaalis bi nekk sa poche c'est pas fait même en Afrique. Mmh, nga ñëw di bomber le torse avec ton costume là di naan bon moi moi. Mmh. donc il faut oser à un moment donné euh, renégocier beaucoup de choses pour que ñu mën avancer. donc mmh. sur ce point également euh, le programme de Diomaye Président. est un programme qui est intéressant. Mais il faudra aussi que ñu am une levier marge de manœuvre même interne. Mhm. J'ai parlé de l'Assemblée nationale et des lois. Mhm. Sinon, on ne va pas changer les lois. Mm -hmm. Et j'ose espérer qu'il n'y aura pas de la résistance d'ici septembre de ceux qui sont aujourd'hui en face. Et, ou bien qui sont dans d'autres structures. Oui. Je pense que la deuxième question c'était l'industrialisation. Waaw, l'industrialisation. Mhm. fii da ngay gis lu ñu tabax lu ñu lu ñu béy fii génne ko à l'étranger transformé ko indi jaayaat ñu hmm. comme le cas de engrais. bon industrialisation bu amee y a un problème d'emploi. xëy bi du du taxaw. Hmm. et puis gars jëm ci géej bi et puis des choses comme sa donc la politique de l'emploi vous voyez que l'État du Sénégal par exemple a prévu enfin euh, le pouvoir actuel a prévu hmm. euh, lu ñuy naan euh, le gadget c'est c'est un regroupement de pour euh, l'emploi et le travail pour que euh, éparpillement bi amoon. mooy par exemple DER fii euh, nu mu encore. Euh, ANPEJ fële. Euh, toutes ces petites structures là yoo xam ni ça n'a pas donné de résultat. vous savez l'État avait prévu quatre cent cinquante mille milliards sur trois ans pour en matière d'emploi xëyu ndaw yeeg yooyu yëpp ça n'a pas donné ses résultats. parce que lu ñu am ñoo xam sax on les payait pour ne rien faire. Mhm. ni ñu wax rek nag ils sont embauchés. Mhm. yooyu yëpp sont des choses que aujourd'hui qui ont échoué et donc euh, l'État du Sénégal aujourd'hui à travers le pouvoir qui en place euh, am na yoo xam day toog waxtaan ak ñeneen ñi et puis faire confiance aussi aux Sénégalais oui yu bëgg parce que les Sénégalais y porteurs de projet comme Agrobiovision yoo xamante ne Afrique dañ koy xëccoo te kooku nekk en Sénégalais mais loolu je pense que avec ce nouveau gouvernement là il faut ñu euh, am confiance jox ko préférence nationale boobu aw voilà ah, mhm. suuf saa ndox manqué wu fi manqué wu fi alors donc moo tax moo tax le projet la bi ñuy soutenir aujourd'hui de Diomaye président a prévu huit pôles pôles économiques industriels en fonction de chaque zone ñi en par exemple des produits du mut encore des fruits ñeneen ñi agricole dans le nord par exemple tout ce qui concerne euh, le riz ak yooyu mhm. euh, mais également dans le dans le centre l'arachide ak yooyu donc zone bu nekk ak loo xam ne moom la ñu ko prévoir. mais nag il faudra aussi épauler les gens. D'accord. Parce que quand on n'a pas de crédit, on ne peut pas euh, s'établir. On va les accompagner. Issa. Mm -hmm. on va parler des transports. muy euh, secteur boo xam ne euh, man fa lañ fa lañ la xamee déjà euh, ci une société nationale muy Dakar Dem Dikk. xëy na toogoo ci post ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum transport mais c'est un secteur bu bëri ay jafe-jafe selon yow dans l'avenir maam lan lañ war a mën a def. loo xam ne dina mën a tax ba secteur boobu noonu mu mën a gimmi parce que euh, suñ waxee euh, Dakar Dem Dikk gis nañu liggéey bi muy amal mais am na ñeneen ñu nekk à côté muy euh, transport interurbain beeg urbain bi nga xam ne ñu ci bari liñ jàpp ci ay jafe-jafe bokk na ci lu mel ni war gaynde yi taxi yi nga xam ne ñooy daw fii xëy na mënuñu wax pour joxe publicité yooyu mais am na fi ñu ñëw di concurrencer no les taxi ak beneen bi muy ay cag-cag ak yooyu yëpp te ku ci nekk mënoo ko tere ci réew mi ne ko doo fi liggéey mais lu ñu war a mën a def pour que secteur du transport mën uh, a am avenir bu meilleur non il faut commencer à moderniser d'abord le, le, transport ci mmh. domaine yëpp c'est e vrai que j'ai été dans ce domaine-là pendant six ans ba may jël le transport public muy Dakar Dem je pense que uh, il y a eu beaucoup d'obstacles y compris par exemple uh, l'interurbain ouais. les sociétés privées dañ ne woon ñoom c'est une c'était une concurrence déloyale mooy war ñu ko def coow li bëri na fi lool nag je me rappelle même l'État euh, en ce moment-là <laughs> m'avait demandé de stopper le projet c'était un mercredi le ministre m'a appelé pour me bon il faut arrêter parce que le président de la République dit non j'ai dit non moi je vais pas m'arrêter lancé loolu moo tax man waram ma dàq bu yàgg sur autre chose pour être têtu mais le fait d'être têtu c'est dans l'intérêt du pays mënuñu bàyyee oto yoo xam ne boo ci duggee toog gis euh, tali bi boo xoolee ci kaw gis asamaan bi gis ay xar yuñ ci takk ci biir ñu naan lan transport de personnes de bétail yooyu donc yooyu yëpp on a forcé le passage ba tey c'est quelque chose qui est heure dem heure dellu si heure climatisé et sécurisé les accidents mortels ne sont ne concernaient pas des cas dem dikk bien c' est vrai que nag à côté il faut oser quand même dem fa état dafa war a am nga jël ses parce que accident yi fi am la ay Sikilo ay Sakal yooyu yëpp c' parce que ces voitures la passent que même devant de gendarmes yenn man véhicules que je considère comme étant à trois roues pas quatre ay xale lang ci ginnaaw di ci nelaw les gendarmes le voient là il faut parce que maintenant il est intérieur <laughs> euh, euh, gendarme fa nekk. <laughs> je pense que c'est ça ouais. intérieur gendarme moo au niveau de la défense il y a un militaire, donc euh, fu leen di jaay di jaar ils vont appliquer la loi à la lettre et parce que euh, je ne dis pas qu'il y aura il y pas y aura de tolérance zéro mais la rupture doit se sentir partout partout donc il faut moderniser le parc il y a des voitures yoo xam ne amuñ seen place ci place publique bi dans temps yi ñu ngi def déjà une modernisation de pouvoir euh, pour la verbalisation commencé woon na. voilà nga xam ni foo mënti nekk mën nga fay sa kii bu xam ni day créer traçabilité mais un pays qui n'est pas informatisé digitalisé alors que la digitalisation de l'administration fait partie du programme de Diomaye Président. Ouais. donc yooyu je pense que sur le transport il faut quand même oser affronter le par les ak gars yi war a kii yeeg nga xam ne ñoom. moom waaw syndicat yi waxtaan bi jubóo di leen di. ils sont man ba mu ma ñëwee dem dikk j'ai trouvé des maa ngi sànni un clin d'œil à Goudiaby Mamadou Goudiaby vous connaissez mais dañuy toog waxtaane lii dégg naa leen lii dégg naa leen mais la politique de l'État c'est ça d'accord mais li Issa bañ tudd euh, maam Khady Ba li Issa bañ a tudd mooy yi xam nga injustice bi mënta weesu ñu jox licence benn entreprise bu tudd yàngoo wala lu munti doon it ci xaw ma yeneen ak yeneen yi ñoom ñiy exploité seen licence Pape Makhtar dem ci entreprise boobu contracté ak ñoom bu dawee ci tali wi policier bi jàpp ko ni ko transport irrégulier de personnes. injustice malgré la licence. oui non parce que xam nga lu tax taxi kase nañu autorisé mu def transport. transport mhm. léegi man bu ma yoree sama particulier dem contracté ak waa Yango wala keneen ku mu mënti doon bu ma dawee ci tali policier dafa may arrêté ni ma transport irrégulier de personnes. Mhm. c'est vrai contractuel da nga ñëw ne ko ne yóbbu ma fii. non da dem ci société bi xam nga ñoom. société nañu entreprise yor yor ñu ay oto. maanaam nga yow yaa yor sa oto. nga dem signé ñoom contrat. ñoom ci li ngay liggéey ñu am ci pourcentage bi. nga am ah, ci ah ok je voilà léegi ñoom ñooñu état bi jox licence pour ñuy liggéey ñoom amuñu oto léegi Pape Makhtar yore particulier moom moo ciy liggéey policier bi di ko jàpp chaque minute. mais Pape est-ce que je comprends li ngay wax nag mais nag si on l'ouvre cette brèche là il y aura des véhicules qui vont se retrouver avec quelqu'un qui a la licence mais le véhicule n'est pas certifié transport en commun. waaw nag autant état bi balaa muy jox société bi. ay mi def loolu. waaw ah, ah. mi transporter personne. mu ni ko da ngay indi autant de euh, xaw ma nombre de véhicules yoo xamante ni. explicitement pour loolu la. Mhm. effectivement mais doo bàyyi tey jii kooku mu nii dafay liggéey ay sénégalais sénégalais yooyu di ci liggéey rond point bu ne ñu taxaw leen ni leen taxawal fii euh, da def transport irrégulier. waaw mais xam nga boo demee ministère de des ñu la voilà pour euh, agrément licence par exemple les conditions sont là pour pouvoir faire du transport en commun. yow nga ñëw def ba pare ñun la non benn ci condition yi tu la pare ngay naan noonu xaw ma ko woon yow ñu jàpp la mais ignorer la loi c'est-à-dire que le droit boo ko appliqué à la lettre day gaañ quelqu'un dans un pays sous-développé mooy les gens ne savent pas beaucoup ne connaissent pas il faut que ñu tàggat leen informer leen par exemple dans vos télés des choses qui passent chaque minute ou bien euh, avant le journal informer sur la nu mu daan ko sur le civisme mais mais bi mën a comprendre c'est-à-dire gis nga boo génnee ci mbedd mi nii guddi gi surtout guddi gi da ngay gis euh, ñu taxaw loo leen ci mbedd mi bëri na mhm. ñu ñuy taxaloo ci mbedd bi bu ñu leen jàppee li ñu leen wax transport irrégulier de personnes léegi ñoom ñi nga xamante ni ñooy def transport yooyu xam lan lañ lay wax wax ma sa tur ak sa sant nga toog ci kalam ngir yàlla parce que boo toogee ci ginnaaw ñoom bu ñu la gisee dañ lay naan transport irrégulier de personnes te pourtant kooku li muy def même bu nekkee lu irrégulier état moo ko organisé mhm, ndax ci société bu muy liggéey état bi moom moo ko reconnaître mhm. ba daal leen laa la mën a wax. ne confirme mais leen laal mun a wax mooy y' a beaucoup de choses yoo xam ne l' état le pouvoir actuellement dana ko jéem a remettre à l' endroit bu terminé wul keneen ñëw terminé mais pagaay bi moom. il faut mu jeex il faut mu jeex maam Khady. oto boo xam ni bon c' est vrai que c' est un accident qui est très extrêmement grave qui s' est passé bërki démb. Mm. je jaale ñi ci décédé d' un seul coup. vous savez ce taxi là. ils ne pas fautifs le taxi pas fautif mhm. parce que nga fekk mu ngi taxaw ñu jël ko yóbbaale yëpp waxoon ñëpp c'est vrai mais quand on voit l'état de certains véhicules de transport ñun la kii commun la il faut les enlever de la de la route. Mm, absolument oto boo xam ne boo dugg da téye buntu bi ba ngay wàcc. <laughs> maam Khady. maître ci li nga xam ne nii mooy peut-être lu ci lu ñu mën a xaar ci ay euh, réformes si on peut.